tey bësu ajjuma ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet bi ñu nekk ministère de la santé et l'action sociale jot na résultat yuy bàyyeekoo ci laboratoire yi may waaj a lim ci junni ak juróom benn téeméer ak ñaar test yi ñu ree yi ñu yi jot a def téeméer ak juróom ak juróom fukk ak juróom benn ñoo ci positif ci junni ak juróom-benn téeméer ak ñaari test yi ñu def téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak ñaar cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo am feebar bi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu am ñu yore doomu jàngoro ji fanweer ak ñeent ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul ku leen ko wàll ci ñooñu Saint-Louis am na ñeent Géejawaay am ñett Joal am ñaar Mbaaw am ñaar Thiès am ñaar Soprim benn Diamniadio benn Diourbel benn Golf Sud benn Grand Yoff benn Kaffrine benn Kër masaar am benn Kolda am benn Matam benn Mermoz benn Oussouye benn Patte benn Point E benn Pout benn Rufisque am na benn Sacré-Cœur am na benn Scat Urbam am na benn et am na benn téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ci tey bu ci yàlla àndee dinañ génn ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu ngi ci réanimation yi ñeent ñàkk seen bëkk seen bakkan ci bësu dëmb alxamis ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na juróom-ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci kaa yi nga xam ne am nañu doomu jàngoro juróom benn junni ak ñaar ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn wér nañ si téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ñoo ci ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett du ministère de la santé et de l'action sociale de ce vendredi 24 juillet 2020 nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1602 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 122 cas contact suivis par nos services, 34 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre localité ou quartiers suivants. Saint-Louis en a 4, Guédiawaye 3, Joal 2, Mbao 2, Thiès 2, Ziguinchor 2, Cambérène 1 Cité Soprim 1 Diamniadio Golf Sud 1 Grand Yoff 1 Kolda Matam Mermoz Oussouye 1 Patte d'Oie 1 Point E 1 Pout 1 Rufisque 1 Sacré-Cœur 1 Scat Urbam 1 et Yeumbeul 1 121 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Quatre décès ont été enregistrés ce jeudi 23 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 9 422 cas ont été déclarés positifs, dont 6 291 guéris, cent deux décédés et donc 2948 sous traitement.